aywa un jour euh, un chiffre euh, Marcel tey da ngaa tànn waxtaanee benn chiffre ngir jeexal semaine bi. muy benn chiffre euh, qui en rapport ak Sinébar. Mm. lañ koy wax ah donc un fléau qui commence à toucher l'Afrique de l'Ouest fortement ndax 4,7 bi buñ ko gisee muy li nga xamante ne moom mooy quantité drogue cocaïne bi ñu jot a saisir diggante 2019 ak 2021 fii ci Sénégal suñu jot suñu sukkandikoo ci rapport bi nga xamante ne Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC ñoom ñoo ko publié donc mardi

Niger fi nga xamante ne amul euh, amul en tout cas géej 214 kilogrammes lañ fa saisir au Burkina Faso 115 kilogrammes ak tamit au Mali 33,9 kilogrammes depuis 2021 muy firndeel ne rek les routes euh, sahéliennes dafa benn zone de transit relativement importante tamit soxna naa daal. sinébar boobu les Marcel ñan ñoo koy jëfandikoo. voilà ñi ci euh, wàllu euh, population bi euh, donc ba léegi ci rapport ONUDC la ñuy sukkandiku moom dafay en tout cas moom li muy détaillé ci quantité yi ñuy xa faral di saisir ci wàllu cocaïne la koy la koy gën a di gesto waaye ñu gis na ne consommation de drogue moom dafa varier en fonction justement notamment des conditions sociales xeetu drogue yi bëri na donc dans le document l'office ñuy jaay apprendre ne par exemple euh, que comme dans le reste du monde c'est le cannabis donc euh, Afrique de l'Ouest suivi du tramadol euh, nekk tamit beneen drogue bu bu ñu ràññee bu nit ci xam bu baax a baax donc cannabis nekk drogue bi nga xamante ne moom moo gën a accessible pour consommateurs yi ndaxte moom njëgam moo gën a néew yeneen i drogue donc l'ONUDC di fàttali que 9,7 pour cent de la population âgée de 15 à 64 ans dafa daal di consommer li nga xamante ne moom mooy yamba en 2020

liées à la consommation de drogue en Afrique ay góor lañ tamit dont l'âge euh, moyen est d'environ 30 ans soxna Naata. Mm, euh, doy na waar Marcel léegi jaay beeg jëfandikoo bu ëpp boobu moom euh, ban njeexital la mën a am. voilà donc liñ ci mën a jàpp comme cause en tout cas li waral. Mhm. Afrique de l'Ouest nekk au cœur du du trafic de drogue bëri na donc ay ay raisons yi koy yi koy expliquer donc bu ñu jàppee li ONUDC wax mooy atteinte à l'état de droit yi nga xamante ne dafay indi ay fitna ay conflits dafay fekk ba dafay fexe ba offrir benn environnement bu gën a propice ngir ñu daal di produire ak trafiquer ay drogue donc euh, te muy indi donc ay revenus xaalis aux groupes armés euh, qui à leur tour ñoom dañuy alimenter seeni conflits groupe armé sahélien yi euh, ñoom par exemple dañuy trafiquer de la résine de cannabis donc principalement produite en Afrique du Nord pour marché de consommation d'Europe et du Moyen-Orient trafic boobu noonu di donner lieu parfois ak ay à des affrontements meurtriers diggante groupe armé de la région et puis plusieurs individus yi nga xamante dañ leen soupçonner que dañu impliqué dans des saisies de cocaïne dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest comme donc le Sénégal et notamment en Guinée-Bissau en Gambie et en Côte d'Ivoire euh, ñoom dañu doon par exemple des passeports de pays sahéliens soxna naata ñu jeexale mm-hmm. ak li nga xamante ne moom mooy déclaration toujours Amadou Philippe de Andrés DG euh, directeur régional ONUDC pour des économies de la région ñu ne ne narcotrafiquants yi dañu

dajal euh, di dalal Maodo Malick Mbaye moom mooy directeur général agence nationale de la maison de l'outil jiite mouvement gëm sa bopp ci coalition Benno Bokk Yaakaar 8h bu jotee